mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne ñu ngi sant yàlla di gërëm kilifa diine yi ndaxte Sénégal ku xam Sénégal xam ne kilifa diine yi ñoo ko téye ñu ngi ñaan yàlla yàggal leen fi te ñu wér ndaxte dëkk boo xam ne nii diine amu fa jàmm dafa dëkk ba du fa du fa diine amul maanaam dara amu fa kon nag Sénégal gii nga xam ne yàlla daf ñu may kilifa diine yoo xam ne nii ñoo tey réew mi yàlla yàlla saxal seen ay fan yàggal leen suñu kanam ba ñu gën a mën a continuer ñaanal Sénégal pour que Sénégal mën a jëm kanam waaye Sénégal gii de Sénégal yi sonn nañu de Sénégal yi lottu nañu Sénégal yi xiif nañu Sénégal yi mar nañu. ndaxte xam ngeen ne Macky sàll fukki at ak ñaar lay war a yore réew mi yor na ko fukki at ak benn waaye fukki at ak benn yooyu boo yoreem réew nga ne yaa ngi yëngal di doxal ñu bàyyi la jox la doole jox la lépp loo xam ne ni moom nga laaj réew mi waaye bu fukki at yi jeexee la nga doon def dañu war a xool lan lay jëriñ Sénégalais yi kon nag bilan makki sàll jarul laaj kenn dañ koy dund ñun suñu bopp ku nekk sa bopp da koy xool sa bopp Macky Sall dafa delloo Sénégal ginnaaw parce que comme bi nga xam ne nii ci la teg plan Sénégal émergent mooy plan bi mu indi woon ne dina fexe ba Sénégal nekk un plan un pays émergent en 2008 avec taux de cent bi nga xam ne dafa egg pour cent ci ndóol ak ci jaaxle ak ci tumulaanke la dugal Sénégal kon nag tey jii bu ñu natee. lii nga xam ne ni moom la président Macky Sall def ci réew mi boobu ba léegi mooy lan mooy Sénégal yi sonn nañu mooy xale yi jaaxle nañu jigéen ñi jaaxle nañu mag ñi jaaxle nañu Macky Sall lëmbaaji na réew mi kon nag président boobu dafa yàq réew mi yàq réew mi ba yàq liberté yi Sénégal dañ doon ne dëkko démocratie la dëkku liberté la waaye Sénégal bi ñuy dund nii amul démocratie amul liberté amul liggéey amul santé amul éducation Sénégal bi ñu nekk nii mooy Sénégal bi gën a metti depuis indépendance bala ko doo xam tey jii rek nga génn fii laaj ko xale yi xale boo laaj ndax sonn ngeen ñu ne sonn nañu jigéen doo laaj ndax sonn ngeen ñu ne sonn nañu mag moo laaj ndax sonn ngeen ñu ne sonn nañu waa kon ci ban Sénégal la Macky la nekk ba yaakaar ne. Sénégal gi ñu dund nii moo dàq ci Afrique moo dàq ci àdduna bi loolu ay waxu kasaw kasaw la problème bu Sénégal nag kenn du ko laajte problème Sénégal mooy Macky Sall problème bu Macky Sall mooy Sénégal kon nag Macky Sall comme moom problème bu dañ ko fiy jëlee sànni ko fële teg fi président boo nga xam ne nii ku bëgg Sénégal la dañuy jël Macky Sall problème Macky Sall problème Sénégal mooy Macky Sall mais parce que sénégalais bu jaaxlee mais Macky Sall moo leen jaaxal démocratie ba amee problème Sénégal mais Macky Sall la liberté yi bu ñu amee problème ku leen di entravé Macky Sall la ku ko neex mu tëj ku ko neex mu tijji ku ko neex mu jàpp ba pare sénégalais yi seen ay problème dund gaa ngi cher tey jii bërki démb nga ne jël nga 22 mesures pour wàññi dundu Sénégal waaw 22 yooyu li mu jariñ nga ñëwaat démb nga ne yokk nga énergie mais boo yokkee énergie kay yokk nga lépp gouvernement njuuj ndaaj la ñu amee gouvernement njuuj ndaaj la ñu amee gouvernement saay-saay la amee gouvernement ndaxee mbaay la ñu amee c'est pourquoi ñu ne Macky Sall mooy problème mu Sénégal problème Sénégal nag boo amee il faut ñu andi solution mu wax ne saafara boobu mooy Malick Gakou ndaxte kat bu bëggee saafara problème dañuy indi solution maanaam solution boo nga xam ne nii saafara bi mooy saafara mooy solution cest dire en fait saafara Macky sàll mooy indi loo xam ne nii moo gën Macky sàll foofu te loolu dafa laaj sénégalais yi xam ne nii dañoo gëm réew mi bëgg réew mi te mosuñu bokk ci benn système man mi di wax ak yéen day liggéey naa ci administration comme benn candidat bu bëgg réew mi def na ko ci Sénégal tey jii bu ñu doon jël yi xam ne ñu bëgg réew mi man Malick ko mën naa wax ne amul kenn ku ma ci gën a jàng te fa ma jaar ci administration ci la haute administration kenn jaaru fa ndaxte bala maa nekk ministre dama nekkoon consultant ci état bi nekk conseil technique nekk expert conseil technique nekk directeur de cabinet avant d'être ministre des sports et ensuite ministre du commerce et de l'industrie kon donc am na fu ma jaar ci état bi xam naa état ensuite ñëpp xam nañ ne pour jëriñ sa réew da ngay jëriñ sa gox ba pare jëriñ sa gox mooy lan géejawee gële ba dëkk kenn mënu naataam dañu am daa base politique le maire député maire honorable député Ahmed Aïdara ngi nii di symboliser les dernières victoires acquise de haute lutte dans notre contrée par notre coalition Yewwi Askan Wi xam ngeen ne Guédiawaye gëlëng ma dëkk mosuma fa ñàkk élection locale ba léegi coalition yi fa am yëpp maa leen giite Benno Siggil Sénégal maa ko giite woon Guédiawaye Benno Bokk Yaakaar ba ma bokkee ci coalition ba maa ko giite jusqu'en 2015 ma créé grand parti yeewi askan wi géejawaay maa ko giite aussi kon nag yàlla def na suma commune bi nga xam ne nii fa laa dëkk muy Sam Notaire mosuma ko ñàkk ci élection candidat élection présidentielle da nga war a am base politique parce que bala nga ne ndaam say mbokk ne la yow yàlla yow la te nag li waa géejawaay wax waa Pikine wax ko waa banlieue bi wax ko mooy président Sénégal bii di ñëw dafa war nekk un enfant de la banlieue te loolu li tax ñu wax ko mooy xam nañ ne banlieue bi mooy Sénégal parce que banlieue mooy condensé de l' ensemble des problèmes du Sénégal loolu moo tax ñu yaakaar ne saafara problème Sénégal mooy fal Malick Gakou président de la République en 2024 bu loolu weesoo mën naa yëkkati sama loxo teg nii jàkkaarloog sénégalais yi ne kenn mun naa taable ne sama loxo set na man nekk naa fonctionnaire haut fonctionnaire de l'État du Sénégal nekk naa président de la région de Dakar bi nga xam ne maa yor domaine maritime régional nekk naa ministre waaye mën naa waat ci kanamu Sénégalais yëpp ne mosum en benn mètre carré terrain boo xam ne ci état laa ko jëlee. mën naa wax aussi musuma sàcc ci xaalisu Sénégal yomb naa ko sax ndax fa ma jóge ci couche populaire yi ñun xamuñu loolu li ñu xam mooy le sens du partage li ñu xam mooy bokk li ñu xam mooy boole li ñu xam mooy dimbalante waaye xamuñu sàcc alalu réew mi waaye may wax ne bu neexee yàlla en 2024 du ma yàlla defee ma nekk président du Sénégal sàcc alalu réew mi jeex na fi luubal alalu réew mi jeex na fi te képp ku ko def di nga jàkkaarloog état bi loolu nag bala nga ko mën da ngay fekk sa loxo set bala nga ko mën day fekk nga mën a liggéey bala nga ko def day fekk nga am expérience te loolu yëpp mu ngi fii moo tax ñu am yaakaar ne bu neexee yàlla en vingt 2024 Sénégal dina fal Malick Gakou mu nekk président de la République nekk le cinquième président pour que ñu defaraat Sénégal pour que Sénégal. tabaxaat suñu réew renforcer suñu démocratie renforcer liberté yi teg Sénégal ci koom bu nga xam ne nii day nekk koom boo xam ne ni day amal njëriñ Sénégalais yi lii lañ yaakaar ne bu ñu ko defee réew mi jëm kanam jëm kanam boo xam ne ni nag du état bi mooy jëm kanam bàyyi citoyen yi waaye day nekk citoyen yoo xam ne dañuy jëm kanam ànd ak état bi Sénégal nekk boo xam dëkk boo xam ne dañ koy ràññee Afrique ràññee ko ci àdduna bi ci neexaayam ci jubaayam ak ci taaram ci li nga xam ne nii moom la war a jëriñ askanam lii laa ne dinaa ko partage ak yéen et je reste à votre entière disposition pour échanger avec vous autour des préoccupations qui nous concernent tous ñun sonn nañu sonn nañ trop moom bu sonnul Sénégalais yi sonn nañu Macky Sall tulleeg Mali Macky Sall fii Macky sàll fële waaye doy na boo yore am réew fukki at ak ñaar la nga waroon mën def yëpp def nga ko fukki at ak ñaar nga yore réew mi Sénégal jox la lépp nga nekk chef de d'état nekk chef suprême des armées nekk la patron de l'administration waaw pendant fukki at ak ñaar ñu jox la na doxalal nga doxal ba egsi fii tey réew mi ndóol réew mi sonn réew mi jaaxle waaw xanaa nag yow war ngaa doyal nag waaye nag bu doyalul ah je pense que loolu Sénégal yi tontu nañ ko nee nañ ko troisième candidature moom du am. troisième candidature du am te bu ko bëggee du ko bëggee daañu ko génne réew mi génne ko réew mi nag mooy lan mooy Sénégal sénégalais ñoo moom Sénégal sénégalais ñoo moom Sénégal kon nag. sénégalais yi ñoo moom seen réew Macky Sall mënul forcer sénégalais yi ne moom Macky Sall moom moom Sénégal bu bëggee forcer nag daañu ko forcer parce que ku bëgg a forcer peuple peuple daa dina forcer loolu moo tax ci xeex boobu dañ ko dafa ko teg pour ne day am troisième candidature ñu koy wax ci biir ay mbooloom en tout cas ñi ma àndal mooy la coalition Manko Yewwi Sénégal ñooy nekk ci kanamu xeex bi nga xam ne nii mooy xeex troisième candidature boobu ndaxte Sénégal yi bëgguñu ko te nañu nag Sénégal lañ fi nekkal euh, ci li nga xam ne nii moo jëm ci mbirum li ñuy wax Ousmane Sonko Adji Sarr en tout cas ñun amuñu ñaari wax ku ñu xam xam ne amuñu ñaari wax bi mbir mi commencé ba tey lañ ci doon wax lañ ciy waxaat. mooy suma rak suma xarit le président Ousmane Sonko état moo ko bëgg faagaagal état moo ko bëgg a complot loolu lañ ci mus a wax loolu laa ciy waxaat tey jii parce que ñëpp xam nañ ne complot la complot nag li koy xeex mooy am taxawaay bu mat sëkk te taxawaay boobu nag ñun ak l' ensemble de la coalition Yewwi Askan bi nga xam ñoo ko bokk ak moom daañu ci premier rang combat bi nga xam ne nii. moom la ñuy mënee pour que moom mu am ay liberté parce que nag injustice baaxul kenn du ko teg ci ndodd kenn comme ñu dañoo partagé valeur u Yewwi Askan Wi signé noo charte bi le 2 septembre 2021 la ñu signé woon daañu ko doxal ba mat sëkk jàppale président Ousmane Sonko ci xeex bi nga xam ne ni moom lay xeex pour que axam ak yelleefam mën na mat sëkk pour que li bëgg ci réew mi yàlla may ko ko te li ñu bëgg ci réew mi ñun ñëpp mooy lan mooy Sénégal am jàmm Sénégal am tawféex Sénégal am naataange kon nag ñun suñu camp ci loolu leer na nañ c'est le camp du soutien au président Ousmane Sonko. dañu ne Macky sàll moo gën a baax profil maanaam taxawaay pour jiite réew mi 2024 waaw loolu sax intéressé wul Sénégalais yi parce que Macky sàll jàll na ba pare Macky sàll bokkatul bokkatul Macky Sall bokkatul Macky sàll gasi Macky Sall wóoroo wóoroo gasi kon nag tey jii mu am profil bu baax ak mu am profil buy jégg ak loolu yëpp intéressé wul Sénégalais yi waaye dama yaakaar ne président Sénégal dañ ko war a tànn xam nga ne Sénégalais yi nag jot na nag ñu fal président parce que Sénégal nag dañoo am lu ñu tàmm du ñu fal dañuy folli waaye dama yaakaar ne 2024 bii di ñëw ak àdduna bi ni mu lambaajee ak jeexi jaax yi am ci réew mi Sénégal day war a tànn président dañ ko war a fal fal président nag mooy fal président bu loxoom set mooy fal président bu bëgg réew mi mooy fal président bu yërëm réew mi mooy fal président bu am compétence mooy président bu ay relation mooy président bu am base politique maanaam fa mu jógee bu ne dafa bëgg a nekk président waa dëkk ba ne d'accord nañu pour mu nekk président parce que olof def ne bala nga a ne fa président boobu nag mooy Malick Gakou bii bu neexee yàlla en février 2024 dinaa nekk le cinquième président du Sénégal tàll loxo sénégal yi ñu ànd liggéeyaat Sénégal tabaxaat Sénégal ba mu am xar bi ñu soxla exposé liminaire li ñuy wax ci économie dëkk boo xam ne nii day décapitaliser xam Sénégal ñun bi Macky Sall nekkee président ba léegi at bu nekk mu dégg ñu souveraineté alimentaire ba ginnaaw suba sax fii ci Ndakaaru dina lancer un sommet mondial sur la souveraineté alimentaire mais lu muy jëriñ Macky Sall chaque année mën nañu le Sénégal sera autosuffisant en riz le Sénégal sera autosuffisant en céréales en maïs le Sénégal auto autosuffisant en oignon man nekkoon naa ministre du commerce waaye la ma mus wax laay waxaat dama dëkk bii tant que ñu ngi importer li ñuy lekk Sénégal du jëm kanam Sénégal. mais Sénégal daka la ñuy ceeb di importer soble di importer pomme de terre di importer diwlin ba pare ñu ne Sénégal a ngi avancé 12 ans Macky Sall di ñu dig souveraineté alimentaire le Sénégal importe 1 million 200 mille tonnes de riz par année et le Sénégal ne produit pas 300 mille tonnes. Ce déficit-là n'est pas un déficit de 300 000. Le déficit avoisine les 900 000 tonnes. Et d'ailleurs, au-delà même des 900 000 tonnes. Parce que Sénégal, tant que ñun li ñuy dund duñ ko bay ci réew mi Sénégal du jëm kanam. loolu moo tax dans le cadre du plan alternatif suqali Sénégal dañu ne ñun le moteur de la croissance maanaam oto bi croissance économique di dugg pour dem jëmali Sénégal kanam. mooy mbay mi mooy mbay mi te bu nekkee mbay mi nag mooy d'abord eh, dañuy bay ci ceeb di bay lépp loo xam ne Sénégal daf ko daf ko soxla en termes de consommation courante te loolu moo fi amul loolu moo tax tey jii quelles que soient mesures yi Macky di jël tant que deful ne agriculture mooy moteur croissance Sénégal du jëm kanam ba pare nag boo amee agriculture bu baax aussi te amoo industrie transformer li ngay bay ci suuf def ko en industrie ba loolu mën a indi koom pour que xale yi am liggéey stabilité am au niveau économique tant que loolu amul Sénégal du jëm kanam loolu moo tax euh, boo liiree suñu plan alternatif suqali Sénégal dañu wax ne le moteur de la croissance c'est l'agriculture c'est le secteur primaire et ensuite au relais d'un secteur industriel parce que bu amul industrie aussi ñaari mamel yooyu ñoo war a tax Sénégal mën a jëm te loolu amul tey parce que tey jii boo xoolee croissance bi ñuy wax Sénégal yëpp société étrangère yi ñoo ko moom parce que bu ñu nee croissance quatre pour cent cinq pour cent fa mu jógee mooy secteur tertiaire secteur tertiaire mooy lan ci tubaab mooy secteur bi nga xam ne nii mooy service yi te service yi li ci gën a ëpp solo ci croissance bi nga xam ne moom la Sénégal am mooy télécom te télécom yoo xam ne ne ay Wave la ay Orange ak leneen ak banques yi ak assurance yi te loolu. mënul andi comme ci am réew. loolu moo tax ñu ne pour ñu développer Sénégal nañu delluwaat ci mbay mi nañu delluwaat ci napp gi nañu delluwaat ci sàmm gi nañ leen jox seen doole pour que koomu Sénégal mën a am doole pour ñu liggéeyaat Sénégal. accident yi ginnaaw bi ma jaalee ñi gaañu ñëpp di seet ñi nga xam ne nii dañu am ay gaañu gaañu ci accident yi may wax ne accident yi. li ko andi xam nañ ko yi baaxuñu oto yi baaxuñu bu tali yi baaxul oto yi baaxuñu mais accident day yomb te tali bi kii responsable am mooy Macky Sall de toute façon Macky Sall moom tant que jógul ci réew mi hmm. Sénégal di jóge ci ay accident ak problème loolu moo tax ñu yaakaar ne 2024 loolu yëpp dina féete boor Sénégal yi dañu fal président bu bëgg Sénégal liggéey Sénégal pour que Sénégal mën a jóge ci tolof tolof yi ñu nekk nii eh, xam nga vous savez pour tabax carrière politique Sénégal xam nga Sénégal pour être sérieux euh, il faut ñu xam aussi sama carrière politique man am naa expérience politique am na fu ma jaar am naa jaar-jaar te ñëpp xam nañ ne du ma nitu caaxaan politique nag dafa am noo koy defee. ni ñu koy defee mooy lan c'est vrai euh, bi ma nekkee sama base politique muy Géejawaay la ma fa waroon def yëpp def naa ko fa jàppale naa xale yi jàppale naa jàkke yi jàppale naa religion jàppale naa culture jàppale naa éducation xam ngeen ne sama fondation bi nga xam ne nii mooy yore fondation maternité solidaire mi ngi xeex jigéen ñi jur doom di faatu te Sénégal mille femmes dañuy gaañu at bu nekk ci mucc loolu yëpp nekk na lu nga xam ne nii boo seetloo samay action def naa ko man damay construire carrière politique non pas parce que dama nekk un opportuniste j'ai jamais été un opportuniste et je ne serai jamais un opportuniste c'est la raison laquelle chaque fois qu'il y a des élections damay jël des décisions appropriées géejawaay ba ma dëkk lan lan lañ ma doon reproché mooy dañoo bàyyi suñu dëkk ab jàmbur yore ko ñu bëri jàppoon ne man am naa ci responsabilité ce qui vrai parce que coalition ba gagné woon maa ko giite woon may benn bokk yaakaar waaye aw ma woon responsabilité directe ci falum ka fa nekkoon moo tax ñëpp xeex ñu ànd jàppale suma rakk ji ay Aïdara ñu fexe ba nu nanguwaat suñu dëkk tey jii mën naa wax ne amul benn homme politique boo xam ne ni ëpp na ma base politique ci Sénégal ndaxte bu ñu seetloo ne man sama commune bi ma dëkk muy Sam Notaire mosuma ko ñàkk élection dinaa dégg sax yenn saa yi ay analyste politique naan Malick Gakou gañewul dara man nag damaa bëriwul wax xam nga bañ a bëri wax moo tax ñu bëri ñu yaakaar ne analyste lañu dañoo xamul dara rek waaye man boo demee fa ma dëkk commune ba ma dëkk 2009 maa ngi jiite coalition bi ko gagné muy Benno Siggil Sénégal 2014 Benno Bokk Yaakaar maa ko jiite au niveau départemental mosuma ñàkk sama commune 2021 vingt deux maa ngi tiwaat coalition Yewwi Askan Wi ñu fal ay dara bon kon nag mënu mu wax ne am naa retard parce que un homme politique il doit être ancré dans une base politique te am naa base politique. dafa fekk nag ne sama stratégie de conquête du pouvoir man maa koy définir sama bopp du événement yi ñoo may yóbbu rek may tey tey di ànd ak nit ñi déedéet daa dama xam fu may teg sama tànk dama doon construire carrière politique tabax naa ko am na ñu li nga xam ne nii bu jóg jotee damay jóg waaye dama jóg rek parce que c'est la clameur populaire loolu moo tax ma ne euh, amuñu benn retard bu neexee yàlla li ñu doon tabax pour Sénégal mat na population yi xam nañu loolu waa Guédiawaye comprendre nañ loolu jaar nañ ak ñoom fi ñu war a jaar ak ñoom te bu neexee yàlla le 19 février le 19 février maa ngi leen di invité toute la presse nationale internationale ci Guédiawaye dañ fa def meeting boo xam ne nii musul am Sénégal ma ne le 19 février bu neexee yàlla Sénégal yëpp ñu xam ne Malick Gakou taxaw na pour jël réew mi maa ngi leen di invité yi ñëpp le 19 février Guédiawaye puisque xam nga ni tournée nationale bi ñu commencé woon suqali Sénégal dañ koy continuer encore une fois ak à Ndangane Sembo à na le 4 février bii di ñëw kon nag donc amuñu benn retard ñu ngi suñu programme ñu ngi suñu projet te bu neexee ak yonent bi yàlla dinañu may ndam en 2024 ñu nekk le cinquième président du Sénégal waa léegi nag xam nga euh, mburoog sow yàgg na de buy xaar goloria ba léegi xanaa war na ndam nag xanaa xanaa mburoog buy xaar goloria xam nga aussi il faut que nit ñi comprendre dara man bariwuma wax te je suis pas un opportuniste xam nga nit ñi li ñu war a jàpp mooy man du ma bëggoon nekk ci état mais du ma démissionné ci gouvernement xam nga sénégalais yi malheureusement ci gëri ba dañuy dañuy gàtt xel xanaa du ma demoon bay war a nekk gloria ma nekk ci gouvernement bi continuer ci nekk man ci gouvernement bi laa nekkoon di nekk numéro 2 AFP je crois que mënoon naa fukki at ak ñaar yi Macky Sall yore gouvernement moo naa nekk ci biir ba léegi mais dama bañ dama bañ moo tax ñu dàq ma AFP en doon bañ mooy Macky Sall nekk candidat AFP déjà en 2017 plus tard en 2019 loolu moo tax ñu dàq ma AFP loolu di waa léegi man 2017 ma bañ loolu boobu kenn bañagul ensuite ñu jege fa ñëw gor ca wax ja ci référendum ba pratiquement maa ko giite ñëw maa ngi ko wattu Sénégal ñëpp xam nañ ne maa coordonné woon ko wattu Sénégal contre Macky Sall avant maa ko vote Sénégal le référendum bi ñu ko voté à l' assemblée nationale man lañ njëkk jàpp devant les de l' assemblée nationale yóbbu ma police centrale nga fàttaliku ne ba ñuy dem ci élection législative yi man ànd woon ak Macky Sall ñu jóge fa dem élection présidentielle mu téye ma ci parrainage bi ma dem coordonner la campagne de Idrissa sec mu pare ànd ak Idrissa Seck ànduma ak moom ma jóge fa nekk membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi élection locale yi ñu contre Macky Sall ko jóge fa nekk élection législative ñu contre Macky Sall ko waaw kon nag xam naa ne moom bu goloor yaa amee dafa ragal ne bu goloor yaa amee nañ ko seet feneen man nag man nag je ne suis pas un tricheur yebuma Sénégalais yi parce que bëgguma ko ma yeb man bëgguma ko ma yab ba àdduna di tukki du ma toog ak sénégalais yi wax leen loo xam ne nii dañ ma jàpp comme ko wayadi joob naa loolu d'ailleurs je suis le politicien sénégalais bu kenn mësul vaar ma ne ma ne ma ne je suis politicien sénégalais en tout cas kenn mësul teg ne ma Malick Gakou yaa waxoon lii démb yaa wax lii tey te nag du mus a am mukk